bonjour. Bonjour Aïcha. comment tu vas. naka suba si. yaa ngi cool. nice naka weekend bi. ça va alhamdulilah fii de benn weekend donc moo fi nekk moom weekendu Salma. ñun moom ñu ngi ñu tëdd ak jug yeewu. incha allah moom macha allah. waaw mais moi je profite de la vie maintenant c'est la vie le Sénégal autrement. <laughs> ça a se refléter si ñun. waaye mu ngi lay kiiwal de. ah mais baax siiwal nii dafa bon. <laughs> bonjour Seydina. ñun bi kat tëdd ngelaw yeewu la ah, woon. Ah. waaw moom mi kanam mojj ah yàlla baax na. <laughs> alors mi tey nag nga indiwaat sujet bu am solo man j'aime ces genres de sujets l'autonomisation de la femme. surtout ça oui. Ah. on va nous dire que nous sommes des féministes mais loin de là. mais ma ne la on doit être féministe nag pour avancer <laughs> il faut qu'on soit féministe pour avancer alors l'autonomisation des femmes passant par la formation et ce qui est très. effectivement ñu ngi fi. association. Mhm. je pense que je l'ai bien prononcé. très bien prononcé maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau réveil bi c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. très belle ce matin. merci beaucoup maa ngi am contente ci dalal bi ngeen ma dalal. di jiital nuyoo bi ci kilifa réew mi. Mhm. son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay ak gouvernement wam di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu borom kër gi mhm. Ahmed Niass maa ngi koy ziar bu baax mhm. di rafetlu invitation bi. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors sans plus tarder Mélanie kon ma bàyyi la sa gan. d'accord Aïcha en fait tey boo gisee on s'est intéressé à l'autonomisation des femmes parce que Oumy mi toog présidente association la Nanor nañ koy wax sax mais boo gisee ñu intéressé wu parce que dafa am benn touche bi nga xamante ne da koy apporter ci euh, dundu jigéen yi jigéen ñi su ma nee jigéen mooy jigéen yi nekk Dakar ak jigéen yi nga xamante ne ñu ngi euh, ci rukk rukkaan yi nga xamante ne ñoo gën a sori. fii ci Sénégal. Mhm. di leen andil ndimbal euh, à travers des formation yi nga xam ne da leen koy def pour may leen ñu am seen autonomisation am seen indépendance si lu ñuy jàng noonu ñu mën cee dem ba di ci suturlu en fait dem du ci jàppale seen bopp tamit dem itam euh, dem du ci jàppale seen njaboot jàppale ci itam li nga xamante ne rek mooy euh, maanaam gën a taxaw ci lu ñuy wax bay dundee parce que dafay jàppale ci transformation produits yi nga xamante ne produit alimentaire la dañ koy transformer produit yi nga xamante ne c'est fait Sénégal gi xamante mën nañ ko teg mais après buñ ko transformer mhm. mën na indi dara quoi mhm. léegi ci noonu au fur et à mesure la xale jigéen yi ci couture formation leneen ak leneen entrepreneuriat noonu rek noonu ci noonu la leen di gën a taxawee mhm. ci noonu sax euh, ma bëgg ko laaj euh, maanaam euh, madame Diouf tey jii lan moo la lan moo dem ba éveiller sa sa sens boobu maanaam nga toog rek ne man moom ne waruma toog nii rek dama war a jóg taxawal taxaw jàppale jigéen Euh, merci beaucoup maa ngi rafetlu question bi bon boo nekkee ci sa réew euh, man dama yaakaar ne euh, war nga mën a apporter dara sa réew ci bépp fànn man fànn bi ma jël nag moom mooy naka laay def ba sama mbokk jigéen ñi di mën a demal seen bopp ndax booy xool ci biir àll bi ñi nga xam ne seen jàng soriwul walla sax jànguñu dañoo bari te amuñu ci lu ñu jàpp mënuñu demal seen bopp demal sa bopp nag dafa fekk ni au moins nga mën a xam dara ma xalaat initiative fu dem jàppale leen jàngal leen ay formation yoo xam ne dinañu mën di demal seen bopp formation yi bokk na ci wàllu détergent bokk na ci ni ñuy defaree saabu bokk na aussi ci ni ñuy defaree les produits locaux euh, tamaate yi nga xam ne ñu ngi koy bay mu yàq suñu loxo ñu won leen nan lañ koy transformer ba nga xam ne dinañ ko mën a di ko jëriñoo lu yàgg bokk na ci coco bokk na ci euh, et cetera bari na bari na lool même produit laitier yooyu yëpp ñu ngi ci yëngu di leen ko jàngal pour ñu mën di demal seen bopp bu ñu gisee ku leen jàppale comme ni ma koy waxee ñu demal seen bopp bu ñu gisul ku leen jàppale aussi ñu demal seen bopp ci laa jëlee nag initiative dugg ci biir àll bi parce que ñoom ñoo ko gën a soxla sunu yaay booy xool euh, nawet bi bu jotee sunu papa yeeg sunu nijaay ci la ñuy bay jigéen ñi sax dañuy bay mais si 3 mois lay yem bu ñu bayee 3 mois presque 9 mois yëpp dañ koy toog du ñu def dara te booy xool la plupart jigéen ñi ñooy gën a sonn. parce que ñooy daw di wuti lu ñu def ci kër gi ñooy daw ci jàng xale yi fourniture yi yu bëri ñoo ciy daw da ciy am sax parfois ñoo xam ne seen jàng ci lay yàqoo. mooy euh, sunu miina daan doole yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu bëri problème boobu moo koy causé parce que da ngay nekk ci kër dëkk kër gi doxul sa yaay yaa ngi koy gis mu ngi dangi dangi da ngay mujj obligé bàyyi sa jàng ne ah yaay maa ngi dem Dakar pour dimbali la loolu yëpp li koy waral mooy amuñu ci luñ jàpp day métti lool mu yàq jàng xale yi bokk na li ma gën a motiver dem jàppale leen aussi ci loolu. d'accord tey jii ñu gis euh, nii yaa ngi dem euh, ci yenn gox goxaat yi nga xamante ne ñoo nekk déjà ci hors de Dakar tey jii euh, déjà ñoom jëfalanteeg ñoom est-ce que d'abord c'est facile ndax da ngay ñëw rek am accès si ñoom wala nan nan rek ngay doxalee ak ñoom pour ñu mën a am accès ci formation yi nga xamante ne yéen a ngi koy def. bien sûr damay am accès bu baax si ñoom parce que ñoom bëgg nañu liggéey mais gisuñu ko leen jàppale gisuñu ko leen accompagner. bu ñu gisee ku mel ni man euh, duñ ko sax gëmee gisuñu ko ci biir dëkk yi dëkk yi dafa sooxee de. Mhm. dara dara dara amu fa balaa nga kaa xam nga dugg seen biir nga xam ne ñii bëgg nañoo liggéey mais gisuñu ko leen accompagner. d'accord mais formation yooyu tey ban impact tey nga la nga gis ni que maanaam boo jaaree ci benn gox après nga bàyyi leen femmes yooyu tey benn ban formation yi ci bàyyi est-ce que mu ngi leen di njëriñ wala tamit ndax dafa nekk loo xam ne dañ koy def rek après ñu toog. non non non euh, avant-hier rek benn dëkk bi ñuy mujjee woon dem. Hmm. Euh, Ngarjam démb rek woo nañ ma euh, doon defaat seen beneen commande parce que bi ñu fa demee ba jàngal leen bu ñu leen jàngalee dafa am benn quantité produit bu ñu leen di bàyyil. quantité produit boobu noonu dañ koy jaay ñoom rek seen biir mën nañ ko jënd mais waa dëkk bi tamit dañ ciy jënd ndax ñoom euh, village yi ñoom dañoo jàppante ñoom dañoo booloo benn lañu dañuy def social barki dem lañ ma woo di defaat seen beneen commande parce que day am suivi man loolu moom moo tax may gën a xeex bu leen jàngal rek dem bàyyi leen noonu dama leen di woo di leen nemmeeku en fait aussi tamit dama leen di créer bureau foofu noonu ku leen jiite ñu amaat beneen njiit foofu ñu am seen bureau di doxal seen mbir seen produit bu jeexee ma ne leen yónnee leen Dakar ñu jëndal leen ko dugalal leen ko ci horaire bi ñu defaat beneen production. d'accord jaayaat. am na loo xamante ne am na mooy am na ñoo xam ne tey jii ñoo fi toogal mooy yi nekkal fi jigéen yi ak de la femme yooyu noonu ñoo xamante ne mën leen leen woowul tey ci loo xamante ne mooy ñu ñëw ngir jàppale jigéen yi. Mm-hmm. jàppale jigéen nag boo koy def day am day am solo loolu. Mm-hmm. waaye est-ce que tey jii ci li nga nekk wala ñoom yàgg nañ gis ndimbal boo xamante ne jóge na ci nguur gi di dem ci ñoom. non ñun moom ñu ñooy demal suñu bopp ñooy demal suñu moyen bopp euh, amagul kenn ku ñu accompagner. ñoo takk mhm. suñu sër demal suñu bopp. te diit ku ñëw it tamit ñu ànd ak ñoom parce que mënoo ne réew ne développement te boole woote jigéen ñi. ça c'est impossible mënta nekk. <laughs> développement dafa ànd ak ay jigéen. kon nga woon nii comme dafa mel ni àndoo ak ñooñu ñooñu di naan jigéen tey jii nii ci kër gi rek la war di toog maanaam ci waañ bi. amul leneen lu mu war a def daal góorgóorlu. non non may booy xool loolu sax jamono ji ñu toll góor ñu sax nangootuñu loolu. <laughs> dañu bëgg jigéen di liggéey ñoom ñuy liggéey yow ngay liggéey. comme ça kër gi neex la tu fais quoi la vie. man entrepreneuriat. jigéen ñi non non ma góor ñi léegi. dañ naa la tu fais quoi la vie balaa. voilà ñoom loolu lañ lay wax sax. <laughs> boo nee salaamaaleykum salaam ñu ne la lan ngay def man liggéey ngay def <laughs> kon yaakaar naa ne jigéen yëpp war nañu mën a pare seen bopp. te aussi tam kër gi boo bëggee mu neex kii day jàpp fii kii jàpp fii. loolu mooy neexal kër Seydina moom c'est tout à fait le différent loolu le contraire de <laughs> de parce que moom ay su ma nga sukkal ma may ma ndox moom yooyu yooyu nga war a doxee <laughs> jigéen da nga war a soumettre nekk ci kër ga di di raxasaka yooyu nag du ko wax ci caméra bi loolu liggéey bi wax waaw loolu yëpp ci la bokk parce que mënoo ne damay sëy hmm. aussi te doo toppatoo sa borom kër hmm. doo toppatoo njaboot bi mais euh, mun nga am heure yoo xam ne mun nga liggéey dimbali sa borom kër dimbali sa njaboot mais ummi xanaa xamoon ne dax jigéen ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gën a dévoué ci seen liggéey ñoo gën a mën leer mhm. gis nga ñi nga xam ne dañuy gis si bureau yi mhm. ñuy jël ay décision mhm. jigéen ñi nga xam ne gis sur le terrain ñuy nekk ci émission yi di plateau yi di émission di journal jigéen ñi nga gis si mbedd mi ñuy dem di jënd ak a jaay ñoo la dàkk a toppatoo au contraire sax dañuy liggéey pour defar seen borom kër lu ñu am ci seen noonu expliqué ñeen nit ñi quoi ñi ci ñi ci ëpp mais dañuy jàpp peut-être ne jigéen boo xam ne dafa jàng dem na ba am ay diplôme toog na la si bërëbu liggéeykaayam il signe des kii nga jàpp ne kooku noonu dévoué alors que kooku boo seet loolu xoolal day tarbiyu borom këram mhm. léegi idée il faut que ñu dindi ko il faut que ñu dindi ko et 8 mars yi bu jotee da gis ni que lay jox ay exemple de femmes yu bari bëri bëri ci ay reportage yoo xam ne ni boo interroger seen famille dañ naan la dafa dévoué ci këram da naan mhm. comment elle pour réussir à allier les deux choses ak ni métier. Mhm. loolu suñu borom ñun la ko jagleel. Mhm. Mhm. jàpp fii euh, toppatoo xale yi. toppatoo boroom kër gi nekk ci suñu liggéey. loolu sunu borom ñun rek la ko jagleel ah ñun dañoo dañ dañ dañoo war a dooleel dañoo war dooleel bu baax parce que jigéen dooleem bariwul mais côté boobu dañ leen war a dooleel bu baax ndax du ñu tànkam lu jigéen du tànkam lu du tànkam lu njaboot ah Seydina bul ne bon yi ñooy sëy sëy bi. waaw ah bon bon yooyu sëy sëy bi de. lu tax nga wax loolu eh, Seydina tàmm nañu ko ci yow. <laughs> non lu na wax lu tax mu mu loolu non non non. daal day sëy sëy bi léegi de. ah. mi naa mi ni muy sëy sëy. en quoi faisant. ñooy togg añ yi ñooy taaj añ yi. booy liggéey kay dinañ la toggal añ c'est normal. waaw mais jigéen joo xamante ne tey xëy na dem uti pour ñëw jàppale góoram. tey jii bu amee keneen ku nekk foofu noonu. di ko jàppale wala ko jàppale ça c'est normal mm-hmm. wala. daal a baax bon man daal lu ma dul am accès bon lu <laughs> sama sama kër ak sama diggante moom kenn du sama accès. waaye bu ma amee jànq bu may fay. Mm-hmm. benn cinquante bi mooy wàññil tâche ci kër gi dama koy fay bien bon. Mm-hmm. jamono ji sax moom fi mu toll mën na ñàkk ndax doo xëy doo xëy rek bàyyi noonu sa kër vraiment il faut nga wut koo xam ne dalay jàppale ci liggéey bi. bu ñëwaatee si sama sujet formation bi moom mën nga ñëw wax rek. formation yi sa formation yi comment ça se passe exactement. Mm. bon dañ koy préparer à l'avance euh, dañuy njëkk a dem ci dëkk bi. waxtaan ak ñoom wax leen objectif bi ñu intéressé wu ñu commencé dugg ci association bi Nanor Sénégal. commencé di adhérer ñu adhérer ba tollu yenn nombre de personnes yi 200 personnes plus si la ñuy déplacé wu. ñu déplacé woo yóbbaale suñu équipement yëpp yendoog ñoom wan leen ni ñuy defaree formation bi wan leen lépp. mais une journée la wala day jël ay fan. parfois parce que dañuy génn ci àll bi. dem mm. nañ fi aussi Richard Toll. Mm, léeg dañuy fanaan day laaj nga fanaan parce que day métti pour retourner ndax day guddee. Mm-hmm. tas. day laaj parfois ñu fanaan. mais de plus en plus dañuy gis euh, xale jigéen yi wala jigéen yi sax si jom boppam ñu ngi gën a intéressé wu ci euh, transformation li nga xamante ne mooy produit locaux yi pour yow lan mooy def éveil boobu noonu. waaw dafa am solo am solo bi njëkk moom mooy yow li ngay bay sa réew nga di ko transformer di ko jariñoo. Mhm. loolu ndimbal la si sunu réew. ndimbal bu am important la si suñu réew parce que dañuy bay lii di mango bi dañuy gis ni muy yàqoo te léegi ñu ngi fexe nan lañ koy produire ba mun ko conserver ba ñu koy mën a jëriñoo waat di ko lekk bëri na ci produit yoo bëri yoo xam ne ñu ngi koy transformer di ko jëriñoo waat te fii lañ koy bayee mhm. moo tax ñu war a dooleel formation yi nga xam ne ci lañ nekk. d'accord mais comme madaar bi genre yooyu damay gis parce que mos naa def euh, benn tournée te c'était benn tournée la ci euh, affaire ak Anta Babacar Ngom. Uh-huh. moom tam bëri na ci ñu muy jàppale ci ay xale jigéen yi ay jigéen yi xam ñu ngi nekk tamit euh, ci monde rural bi ci ñeneen ñi ak mais damay gis ni kii madaar bi dafa am ay produits yoo xamante ne parfois c'est un peu toxique. Uh-huh. comment est-ce que vous vous faites pour pour maanaam leen pour ñu mën a xam parce que ci femmes yooyu noonu am na si ñoo xam ne tamit jànguñu tamit. Uh-huh. waaw. nan ngeen def ba message yu mën a jàll pour ñu xam ne lii produit bi la lii lii la lii lii la. Mhm. Mhm. waaw dañuy comment est-ce que vous communiquez ak ñoom ay ay mandarga lay doon ñi nga ja ñi nga xam ne jànguñu dañ leen di won ay mandarga ci produit bi ñu xàmmee ne lii lii la produit bi lii lay def produit bi dafa dangereux dañ ci def attention te aussi dañuy am suñu équipement bu ñuy def formation yi. Mhm. dafa am yu ñuy sol. lu ñu ñëw rek defar ko ni day jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ba nga xam ne du am benn euh, problème boo xam ne dañ ko si jàkkoonteel. d'accord lépp aussi tamit produit bu ñu ko defal lépp sur mesure la ndax dañ ko jàng. ok mais su à euh, transformation produit loo yi ak li nga xam te ne mooy ay javel genre yooyu ay madar est-ce di gën a former jigéen ñi ci ay couture jëm ak yooyu entrepreneuriat. ñu ngi koy xalaat nag mais àggaguñu foofu. parce bëgg nañ def ay formation yu bari mais ci li ñu tàmbalee gu mooy produits locaux yi ma la wax ak détergent yeeg savon liquide yi. Mhm. fa lañ toll même ci ñu ngi am tamit euh, xalaat pour ba ci mbay mi pourquoi pas ñu accompagner leen ñuy bay mën a bay noor di bay nawet. parce que neuf maa nga toog ko defoo dara métti na trop trop trop ci àll bi. d' accord mais yaa ngi ni accompagner mbay bi mais loolu xanaa kii lay doon mu ngi koy waxatee sax li euh, nga xamante ne dañuy bay ci euh, table yi ak yooyu. waa bay si taabal yi nañu bay si table yi bëri na yooyu yëpp mën nañ ko produire ndax yooyu yëpp ay buntu la. mais bay ci table yi même si tool yi aussi mën nañ ci bay. d'accord ndimbal dimbali dimbal rek lay laaj ndimbal yoo xam ne mun nañ leen jege si ndox mi. Hmm. tool xam nga amuñu ndox. mais defaral leen ay mini forage yoo xam ne dinañ mën di créer foofu noonu di bay ay espace yu ndaw. Hmm. ok c'est possible. mais Oumy gis nañ a que nguur gu bees gi ba mu taxawee ba tey gisuñu quand Euh, détermination bu mu bu muy wane par rapport ak bëgg famille en autonome ci fànn woowulee ndax euh, gis ngeen ci ay perspectives yoo xam ne ni wala ay messages yoo xam ne war ngeen ko mun a lancer à l'endroit euh, ci régime bu bees pour que ñu gën a bàyyi xel jigéen ñi parce que même gouvernement bi sa conception bi y avait que quatre femmes ci ci vingt cinq loolu moom dëgg la ñu ngi koy bàyyi xel. gisuñu ci tamit suñu bopp bu baax. jigéen ñi bëriwuñu noonu ci gouvernement bi ñu ngi lancé tamit son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay jigéen ñi tamit ci réew mi lañu bokk. waaw bu ñu duggee ci liggéey bi tamit daf koy gën a yombal gën koo neexal. tout à fait. Mm-hmm. d'autant plus ko. <laughs> ah waa mi ngi noonu. jigéen fi am nag ay ay mentions jigéen ñi donc ñu loolu moom war na cee bàyyi xel gëstu gëstu jigéen ñi bu baax a baax a baax. par mm-hmm. rapport ak suñu produit yi ñuy transformé dafa damay gis famille aussi ñu ngi siy góorgóorlu bu baax a baax ah. transformé ay ay de fruits. oui produits locaux yi. locaux yi mais c'est son c'est son problème dañu am problème mu emballage mooy son mooy son problème. waaw emballage. Euh, cest que tey jii da ngay jékki-jékki gis ab libanais ubbi benn ent benn petite et entreprise am di transformer les produits locaux di ko def jus def ko emballage bu rafet jël ko daal di ko teg ci marché bi. mais par contre boo jékki-jékki gis ab femme sénégalaise boo xam dafay transformer moom dafay préférer jël benn bouteille. Mm-hmm. benn bouteille rek. boo xam ni dafay xolli benn étiquette rek def ko fa mhm. te emballage dafa am lu am solo lu muy joué ci mhm. wàllu marketing bi c'est ça c'est que boobu aussi est-ce que yéen a ngi ciy góorgóorlu et pourtant booy seet sax jus locaux yi ñuy defar fi moo koy dàq fuuf mais moo a ngi ciy moom yoon bi ñu jël ci formation yi man foofu dama fay taxaw bu baax mhm. emballage yeeg euh, autocollant yeeg yooyu yëpp yooyu yëpp fii lañ koy tiire te dama ah. leen ci accompagner pour ñu gën a mën di taaral emballage yi c'est important. Okay. Hmm. yooyu dañ ci war a bàyyi xel. non c'est que moom mooy dafay jaay quoi ñu ngi ciy bi en fait. ñu liggéey bu baax ci liggéey bu baax a baax. Hmm, ñu ngi ciy liggéey bu baax. ah kon baax na bu yéen ci euh, tey ñu naan autonomisation des femmes am ñoo xamante ne gëm nañ ñi la femme peut être autonome mais comme ni ko Seydina waxee rek ñenn ñi parfois naam dañuy def mais du ñu jàpp ci biir kër gi tey ji autonomie des femmes ban impact su la mën a am tey ci société bi nga yàpp jàpp ni est que réellement jot na ñu gën a jàppale jigéen yi wala soit nañ leen bàyyi rek ñu dem ak seen ay propres moyens. non non man dama xalaat ne dañoo war a jàppale jigéen ñi bu baax a baax a mm-hmm. baax. jàppale jigéen ñi mooy jàppale réew mi mooy jàppale àddina jigéen mooy lépp. jigéen mooy lépp. jigéen mooy lépp dañoo war a gunge ba ñu yëg ni gunge nañ ñu. Mm-hmm. loolu moom. lu jar a bàyyi xel la. lan moo tax nga naan jigéen mooy lépp. jigéen jigéen jigéen mooy yaay. jigéen mooy yaay mooy jur ku ne mooy jur président mooy jur kilifa yi ko kenn mënta dem bàyyi ko gannaaw. d'accord seen association bi nga xamante ne mooy euh, Noor est-ce que tey jii euh, dangeen di def ay financement mm, non non commencé financement bi commencé guñ ko ñoo ngi toog di xaar. suñ ko amee aussi tamit baax na parce que ñoom àll bi soxla nañ ko bu mhm. baax soxla mhm. ay financement soxla gunge bu baax sax soxla gungee bu baax fan fan ngeen nekk ci àll bi parce que àll bi dafa yaatu ko àll bi nag ñoo ngi fépp fépp fan ñu ngi sollicité fu fu bëri sax ñu ngi Fatick Fatick lañ ko tàmbalee Fatick ngeen nekk instant bi waaw maa ngi nuyu au sax waa Fatick Fatick lañ tàmbalee association kii doo bëggoon nga def foofu ko okkino pogo nga def foofu. waaw nee nañu looy looy looy commencé kay commencé ko si say mbokk. say mbokk ko waaw bokk say mbokk kay <laughs> daanaka def nga. lépp ba pare nanoor bi sax dafa mel ni la. waaw nanoor moom mooy déggoo ci olof. mooy déggoo ndax yaakaar naa ne yéen ñi sax fi ngeen toog balaa ngeen fi toog da ngeen déggoo. dëgg la dëgg la déggoo mooy lépp balaa ngeen di def dara da ngeen déggoo ba pare moo tax ñu tuddee ko. mais saa bi Fatick rek ngeen nekk yéen. non ñu ngi fépp déggoo ma la sànq dem nañ fi Richard Toll. sollicité ñu ngi solicité yeneen région yi fa lañ ko commencé mais après da ngay gis appel yi bëri kii ne bëgg naa kii na bëgg naa te ñoom ñëpp nekkuñu Fatick mais ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan mhm. di dem di déplacé wu di leen accompagner si suñu moyen boobu. Mhm, mhm. est-ce que xalaatoon aussi parce que gox bu ne dafa am benn benn spécificité. boo xam ne ñoom si seen wàllu mbay da ciy da ciy feeñ parce que fu ci mel ne foo demee fu ci mel ne Saalum Kaolack foofu daanaka li ëpp ci li ñuy utiliser maanaam mooy gerte. moom lay jigéen ñi di mm-hmm. nga dem fu ci mel ni Louga. Mm-hmm. foofu li ëpp li ñuy utiliser maanaam mooy ñebbe. Mm-hmm. nga dem fu ci mel ni Ziguinchor foofu fruits yi ñoom ñoo fa ne. Mhm. est-ce que selon seen formation yéen. Mhm. est-ce que boole yi yéen a ngi tenir compte. Euh, kii yooyu euh, facteurs yooyu. d'accord peut-être parce que boo déggee ma naan la euh, waa Richard Toll ñu ngi ñuy woo xam mm. foofu tamaate bi. Mm. seen suuf si dafa nangoo. waaw waaw. Mm. ñu ngi bay ay tamaate ñu ngi bay concombre. Mm-hmm. yi ñuy bay foofu bari na te yooyu yëpp mun lañ leen ci accompagner. te conservation ñu koy mën a conserver. ci mën di jëriñoo yàgg yàgg. bu fekkee côté Saloum bi nga wax gerte gi am na yenn formation yoo xam ne ñu ngi defal laaxu bisaab xam naa xam nga ko <laughs> waaw nga xam ne boo ko defaree mm. euh, da jël sotti ndox rek lekk du jarati ngay sonal madame ak comme ni nga ko waxee woon sànq <laughs> transformation yëpp ñu ngi koy def effectivement leen yombalal euh, kii bi rek ndax ñoom chaque dañuy bëgg di innover. en tout cas merci euh, euh, Oumy Diouf waxtaan bi amoon na solo. di fàttali entrepreneur ga nekk njiital euh, association Nanor nekkoon sunu gan ci rubrique panier de la ménagère Mélanie merci sujet bi amoon na solo. merci merci xanaa di la jox di joxe rendez-vous rek lundi bi di ñëw ci beneen sujet. incha allah ñu bàyyi ko mu tàggatoo moom Madame Diouf. Mm, maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu plateau bi. jërëjëf jigéen ñu yaañ yi ak suñu góor gu baax gi. Euh, merci góor gu compliqué gi. ku <laughs> am lu mel di am kontante bu baax ci invitation bi euh, ak ci sujet yi ngeen xam ne abordé ngeen ko fii nii. Mhm. c'est intéressant di nuyu surtout ñi nga xam ne ñoom laa àndal euh, liggéey gi. Mhm. loo nanoon Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama ñaari moment yi. Euh, maire Faya ak euh, maire Fall. particulièrement maa ngi nuyu monsieur Fall xaban Fall. di nuyu tamit euh, sëñ bi nga xam ne dem nañ fa barki démb ziyaare ko. Mhm. sëñ Habib si Mansour. ak sëñ Mansour Diouf di nuyu nag sëñ Modou Habib Mbacke borom dër bi. macha allah ndax nag am nañu nag gannaaw bu baax a baax a baax. macha allah jërëjëf jërëjëf merci euh, Oumy Diouf xam naa ñun sax fi Walf di nga ñëw defal ñu formation bu ko defee. ah bien sûr bu tasum xibaar bi doxul rek ñu daal dem ci transformation de produit yi. jaajëfal na bu baax a baax incha allah <laughs> merci beaucoup yooyu dina ma neex man moom te defal ma jus rek comme ça ma mën a transformer ay jus léegi léegi sans plus tarder dañuy ñëw ci l'invité de PEF.